jàmm ci naafile yi guddi weeru koor gi tey jii ci guddi fukki fan ak juróom-ñett gi naafile gi doon fukki rakka rakka bu ci nekk ngeen war ci tari sabisma benn yoon xul yaa ayyuhal kaafiruuna benn yoon ak ixlaas benn yoon ñu baamtuwaat ko fukki rakka rakka bu ci nekk fatiha benn yoon sabisma benn yoon xul yaa ayyuhal kaafiruun benn yoon ixlaas benn yoon fukki rakkaa nag mooy juróomi sëlmal jërë ngeen jëf ba subaak jàmm riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi